xam nga di ñaan yàlla di ci woo jeunesse su parcelle beeg maguwaali yeeg xam nga di ci woo ñëpp daal ñu teewee ci xam mu nekk benn spectacle bu nice bu jaar yoon mu réussir incha allah. nan ngeen ci fas yéene taxawee ku ci ku xarañ la. waaw comme nit bu frère am xewle rek parce que Omar mu Omar Moodu moo tax ma xam ko. xam nga euh, xaritu Moodu la depuis depuis depuis depuis depuis lu yàgg xam nga. donc euh, moom rek bu xewle woon dañuy ñëw taxaw. xam nga genre audience bi ci détail. ngeen ko dundee rek laa ko dundee ah. mbégte rek waaw mbégte xam nga parce que nit ku nekk moom kuy liggéey ku nekk xam nga ñaan nga un jour sa kilifa woo la xam nga encouragé la noonu rek laa ko gisee maki Sall bon. président Sénégal yëpp la comme ni ñu koy waxee donc bu invité mbër du ñu def lu dul rafetlu ko rek kontaan kontaan ci trop trop trop. d'accord ci biir loolu am nañu kontaan am nañu mer ndax am na ay kilifa ñoo xam ñu ngi ci biir euh, woon yoon yow nan nga gisee loolu. ah mais la chaque jour ñi kontaan ñi mer ñëpp kontaan ba ci fii jotaay bi am nañu kontaan am ñu mer. Mm. loolu du mën a ñàkk ci àdduna la bokk xam nga mais ñi fa dem je pense que comme kontaan nañ xam nga te bu ñu fa jógee tamit xam nga je pense que bu ñu waxee li leen fa yóbbuwoon tey nit ñi dinañ kontaan tey kenn déggagul benn ah, version xam nga bu weesoo xam nga football bi ñu gis euh, astaghfirullah euh, bàkku bi ñu gis loolu rek la ñu gis xam nga donc kenn mënagul xam lu ñu fa jële ah man de déggaguma ko xam nga donc bu ñu waxagum nañ leen déglu xam nga te xam naa ne foofu moom njariñ rek lañ fa jëlee incha allah moitié milliard bi ñu leen ko jotee peut-être ñoom lu ñu war jot la te duñ ko jote ñoom duñ ko jot pour ñoom kese buñ ko joxoon buñ ko jotoon tamit dinañ ko nuñ ko war a def pour mu jaar yoon dinañ ko def donc na nit ñi def ndànk rek te ñu bàyyi di juger mm. yow buñ la wooyee boo demul yow demuloo mais keneen dem na maandu ci nga bàyyi ko mu dem parce que moom ku nekk ak sa sa gis-gis quoi. Mm. xam nga bu kenn jugé kenn ci gis-gisam. wala mais ñeneen ñi da bul na da ngeen ko bul na da ngeen ko man bokkuma ci demuma demaanuma xam nga. non ma waaw yee xam nga non du lobby du lobby du lobby non ah je ne pense pas que ne la parce que dégg nga xam nga kii ni mu ko waxee guy gi dégg naa woo nañ ñëpp xam nga tey mënoo dajal ñëpp sax kenn mënul dajal ñëpp mais ñu bàyyi ba ñu fubal ba pare rek.